أنزلت أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسر أو سرعة أو زيق لسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم aw isaar bi xayri bayaan aw mahdin aw tasdidin aw hamsatin aw jasmin aw iraamin bi xayri makaan fa kutub minna ala tamaami wal kamaal wal muasib min kulli alhaan waxfir lana ya rabbana ya sayyidana la tuaxisna ya mawlana wasukuna fadla man xalaw mu addiin xaqahu mal aadaa wal qalbi wal lisaan wa hab lana bil xayri wa saadati wal bishaarati wal amaan wa la taqtim lana bi sharri wa shaqaawati wa dalalati wa tugyaan wa nabina qabla al manaaya an qaflati wal kasalaan الأبدان أمنا من عصاب القبر ومن سؤال منكر ونكر من أكل الديدان وبين وجوهنا يوم البحث واحتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكنا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان أستجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والصبور والفرقان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 wa ala siraati nuura wa ila aljannati rafiqa wa baynana wa bayna annaari satran wa hijaaba wa ila alxayraati kulliha dalila wa imaaman bifadlika wa juudika wa karamika ya akram alakramin allahuma ihdina bihidayati alquran wa aafina bi inaayati alquran wa najjina min anniran bi karamati alquran وأدخلنا الجنة وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضل القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا سر الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا بالألف الفاء وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء قلانا وبدال بنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسن الصناعة وبالشن الشفاء وبالسادس دخن وبالضاد الضياء وبالطاء طهارة وبالراء ظفرا وبالعين علما وبالغاء غناء وبالغين غناء وبالفاء فلاحا wabil xaafi qurbatan wabil kaafi kifaaya wabil laami lutfan wabil miim mawasa wabil nuuni nuura wabil waawi wuslatan wabil haayi hidaayatan wabil aami alif liqaa wabil yaa'i yusran wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa aalihi altaahiriin ajma'iin allahumma balligh sawaaba maa qara'naahu wa nuura maa tarawnaahu ila ruux sayyidina muhammadin alayhi salaam wa ila arwaahi ashaabihi radiyallahu anhum ajma'iin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 te di ci kër yeeg ci hôpitaux yi ñu waare seen ràgg yàlla na yàlla saafara leen ñuy tukki yàlla yàlla sàmm leen ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm di ñaan yàlla it ñu nekk ci kaso yi te yóbbu leen fa yàlla yàlla génne leen ñu dellu seen njaboot ci jàmm di ko ñaanit képp koo xamante da am soxla bu mu mënti doon yàlla subhanahu wa taala moom miy faj soxla yàlla yàlla fajal ñu soxla yépp mel ni nag dañuy dëgmal jaamu yàlla yi guddi gu mag boo xam dañ koy làmbatu démb doon nañ ko làmbatu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo wax ne nañ ko làmbatu képp ku koy làmbatu na ko làmbatu ci fukk yu mujj yi laylatul qadr nag yàlla subhaanahu wa taala moom ma wax ne xayrum min alfi shahr nee na guddi laylatul qadr moo gën junniy weer te junniy weer boo ko doon misaal mbokk mi mooy juróom-ñetti fukki at ak ñett ak ñeenti weer maanaam 83 ans ak 4 mois te xam na ni jafe na lool ci doomu aadama rawatina jamono ji ñu nekk mu dund 83 ans kon képp koo xamante ni yàlla may na la nga mën a fekke loolu kon chance la chance nag boo ko amee occasion boo ko amee li nga war a def mooy exploiter ko exploiter ko ci ay julli ay julli guddi laylatul qadr mbokk yi ñu bëri dañuy def erreur maanaam di bu ñu commencé ñu ne leen guddi gi dafa baax nangam dañuy bàyyi ba bu ñu jullee gee ñu bëri ci la ñuy tàmbale wala avant gee lañuy ñuy tàmbale di tocc tocc ak a def seen xeet jaamu yàlla buñ ciy def waaye jaamu yàlla yi guddi gi mi ngi tàmbale bu timis jotee waaw timis bu jotee ndax boo demee summa atimu siyaama ila layl maanaam koor sax yàlla wax ni mottali leen koor gi ba ci guddi gi est ce que dangay bàyyi ba ba mu lëndëm nga door a dog déedéet bu timis jotee rek da ngay da dog kon guddi laylatul qadr mu ngi tàmbali bu timis jotee waaw guddi buñ koy mën a séentu ahadis yi bari na waaye daal eh, am na ay tegtal yi am ñoo nit ñi yaakaar ne guddi ñaar fukk la ak juróom-ñaar. ci abdullah ibn abbas wax ko ci xadis waaw te abdullah ibn abbas yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko téye woon ba mu nekkee liir mu wax ne allahuma faqihhu fi diin wa yàlla maa ngi lay ñaan gone gii yàlla na ko def def borom xam-xam mu dégg diine waaye na may ko mu xam nan la ñuy firee alquran ab Abdullah ibn Abbas dafa wax ni am na yaakaar ni guddi laylatul qadr guddi 27 bi la muy bu ñu wooree 26 ba ci guddi gi ndax nee na baatu laylatul qadr ñëw na ñetti yoon ci alquran nee na boo fa boo wàññee arafu laylatul qadr juróom-ñeenti araf la te ñu nee na ñetti juróom-ñeent dalay jox ñaar fukk ak juróom-ñaar maanaam 3 fois 9 da lay jox 27 kon ñu am yaakaar ni guddi laylatul qadr mun na nekk guddi 27 yëpp beneen bi mooy beneen tegtal bi ñuy joxe mooy laylatul qadr baat bi salaamun hiya boo jàngee saar bi yàlla dafa wàccee benn saar lëmm di wax ci laylatul qadr mu ni ñu ni baatu saar boobu boo wàññee araf yi maanaam baat yi baat yi nekk moo yi nekk ci biir saar bi fanweeru moo la waaw maanaam trente mots la nee na trente mots yooyu boo xoolee wàññi benn par benn baatu hiya bi nga xam ne day dellu ci laylatul qadr moom moo nekk vingt-septième baat moo tax ñu gën a am yaakaar ni xëy na guddi laylatul qadr guddi googu lay doon yonent bi nag sa alayhi wa sallam wax ne nañ ko làmmatu ci fukk yu mujj ndax lan dégg-dégg bi nag léegi mun na nekk naa xam nga nit ñi dañuy wuute kii jàpp ne tey la ñu um kii ne suba la um bu fekkee ni guddi yi mujj yëpp ci weeru koor bi da leen taxaw nañ am yaakaar ne yow moom ala kulli xaal li dëppoo ak laylatul qadr bi yàlla nañu yàlla may nag ñu dëppoo ak moom chance la bu rëy nañu jéem a wut suñu programme moo xam ah dañuy teel a tëdd guddi bi ko jiitu wala boog ah, bëccëg ba lundi ba ñu sieste wala wut ay pexe daal ba incha allah guddi gi moom dañ koy taxawee ci ay naafila taxawu ko ci ay jàng alquran taxawu ko ci tudd yàlla tawax taxawu ko ci def ay istighfar tawaxu ko ci ay sarax ay xeetu jaamu yàlla bu mu mënti doon ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala jaamu yàlla yooyu yëpp yàlla ñu ko yàlla subhanahu wa taala nangu beneen bi mooy boo xam bëggoon nañ cee wax ndax daanaka boo meetuwul euh, ajjuma bii bu paasee wóoruñu ndax ajjuma bii di ñëw ndax dina bokk ci weeru koor beeg déet yàlla rek moo xam te am na loo xamante lu ama am solo la ñu war koo fàttale jullit yi mooy lu jëm ci muurum koor muy zakatul fitr jaamu yàlla yi muuru koor abdullah ibnu abbas euh, abdullah ibnu omar moom moo wax ne yonent bi farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tuumatan li saaim min allahi wa rafas waaye nag wa tu'matan lil masakin mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo farataal azaka yi muurum koor ngir ñu laabal ki nga xamante ne moom moo woor ci ay njuumte yi mu defoon ci ay xeetu wax yi mu wax te jaaduwul ci biir weeru koor jëf yi mu jëf mu ci weeru koor yooyu noonu yàlla subhanahu wa taala da koy day jéggal jaam bi ci zakatul fitri azaka yi muurum koor bi muy def waaye nee na mu nekk loo xamante ni day tax ba ñu ñàkk ñu am lu ñu lekk waaw ku xam diina lislaam xam ni diina solidarité la diina jàppanet la yonent sallallahu alayhi wa sallam nag ne ugnuhum an tawaafi fi dalika al yowm waaw fi mu ne nañu fexe ba ñu ñàkk ñu wàccee leen Euh, laaj bi ci bis boobu waaw ah, nañu fexe ba bu ñu laaj donte nag léegi am na ñoo xam ne daanaka laaj léegi métier lañ ko def yalwaan métier lañ ko def ñooñu moom kenn mënu ci dara waaye ñi nga xamante ne jafe-jafe àdduna moo leen di jàpp du ñu xam mu ñuy def ci bis boobu lislaam ne ñii nañ leen dimbale lu ñu leen leen dimbale mooy kenn ku nekk moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam gor la moo xam jaam la moo xam mag la moo xam ndaw la ba kii door juddu judd kooku nañ ko génneel maanaam lu ñuy lu ñuy tuddee saa saa nag ñeenti mudd la mudd mooy lu fees ñaari loxo walla moo demoon ci saabu ceeb bi koo xamante ni ndax day nekk ci lu ëpp nag waa dëkk bi li ñuy lekk te Sénégal moom amul wenante ni lu ëpp lu ñu fiy lekk ceeb la ceeb nga jël dugal say ñaari loxo loxo yi du ngand ba mel ni mbër loxo yi mbër waaye du ndawit ba mel ni loxo koo xamante ni daa ndaw loxo bu diggu dóom nga dugal say ñaari loxo doo ko tàllal lool doo ko ñëpp lool nga def benn sotti ñaar sotti ñett sotti ñeent ñeenti mudd mooy pour benn nit waaw loolu nag wax yu bëri na 1 kilo 800 2 kilo 2 kilo 500 ku kulli xaal ku génnee ñaari kilo ak liibar moom laa shakka ni génnee ne muurum koor léegi nag boo ko génnee ndax mënees na ko génnee xaalis waaw bu dee mazhab Maalik moom daa tere maanaam nanguwul ñu koy génnee ci xaalis waaye ku ci mel ni Ahmad ibn moom nangu na ci ñu génne ko ci xaalis te boo xoolee boroom xam-xam yu bari yi nga xam ne ñoom ñoo nekk jamono ji nangu nañu ni nañ ko génnee ci xaalis ndax boo ko génnee xaalis ki nga xamante ni moom moom ngay dimbali du fekkee ni xam nga du fekkee ceeb lañuy bu jëlal misaal bu mel ni Sénégal waaw asaka yi muurum koor nga génnee ko ceeb jox ko nit nit kooku lu muy def est-ce que ceeb lay togg bisu korité déedéet yaakaaruma ko waaw maanaam day dem jënd ay ganaar dem nangam ak nangam ndugg soble nangam kooku boo ko joxee ceeb da koy dem jaayiwaat. te bu ko jaayee prix bi gën a dérisoire bi ñu ko bi njëgu ceeb la la la koy la koy kooku boo ko joxee xaalis yaakaar naa ne moom mooy gën gën ci moom kenn ku nekk nga génnee ko lu tolloog 2 kilos 500 nga xool xayma bu fekkee ni yow ordinaire bi ngay lekk nga xool ordinaire ku kilo lu muy jar nga multiplier ko par deux muy benn nit ñaari nit ah, ñetti nit ñeent nit nga xool ko bu ko defee nga génnee ko ngir yàlla subhanahu wa taala nga génnee ko mën ñaari fan lu jiitu lu jiitu euh, bisu korite bi waaye fi mu gënee nag mooy bu ñu nee weer bi feeñ na avant ngay julli mu ni weer bi gis nañu weer bi suba la korite ñu ngi ci timis bi bo nga bàyyi ba jot balaa ngay génnee nga jox ko ki nga moom mooy ki ngay dimbali boobu la gënee waaye nag boo ko génnee ñaari fan ndax xam nga ni mbir yi ni mu demee nit ki dañaan dimbal moom dafay gaaw waaw nga jox teel a dimbali ki ngay dimbali mu lijjanti ko loolu it dina ci am solo bu baax ki nga xamante ni nag daa bàyyi ba ñu julli ba pare yonent bi sallallahu alayhi wa nee na sarax rek la am ci saraxi waaye amul muurum koor li ñuy wax nag benn xadis bu ñuy wax moom borom xam-xam yu bëri nee nañu xadis boobu gërul mooy euh, siyaamu ramadaani ahadikum muallaqun bayna samaai wal ard waaw wala boog siyaamu ramadaan muallaq bayna samaai wal ard laa yurfa illa bi zakatil fitr maanaam nit ki boo wooree woor woor woor woor ba ngoon jot ba koor jot kii dañuy jël sa woor aj ko ci asamaan gi li koy yëkkati mooy zakatul fitr loolu moom xadis bu booloo xam ne ñu bëri maanaam nee nañu xadis boobu wérul ala kulli xaal azakay muunu koor a ngi noonu guddi laylatul qadr mi ngi noonu yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm ba ñu taxaw ko ni nga xam te ne moom la yàlla subhaanahu wa taala mu noonu la ko gërëmee wala que yàlla may ñu ñu fekkee ay weeru yu bëree bëri bëri ñu ngi sant yàlla lépp lu ci jub ci wax ji ñu xam ne ci mbaaxu yàlla subhaanahu wa taala la lépp lu ci dëng ñu xam ne ci ñun yàlla ñu yàlla jégal jégal leen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa الحمد لله الذي وفق برحمته من شاء من عباده فعرفوا أقدر مواسم الخيرات وعمروها بطاعة الله وخذل من شاء بحكمته فعميت منه القلوب والبصائر وفرطوا في تلك المواسم فباءوا, بالخ... فباءوا بالخسائر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أقوم الناس بتاعة ربي في بواتن وظواهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله جل أن الله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فهما خزائن الأعمال ومراحل الآجال يودعهما الإنسان ما قام به فيهما من عمل ويقطعهما مرحلة مرحلة حتى ينتهي به الأجل فانظروا ماذا تودعونهما فستجد كل نفس ما عملت وتعلم ما قدمت وأخرت في يوم لا يستطيع به الخلاص مما فات يقول تبارك وتعالى yunabba'u al-insaanu yawma'idhin bimaa qaddama wa akhar bal al-insaanu 'alaa nafsihi basiira walaw alqaa ma'aadhiira ayyuha al-mu'minuun laqad qata'tum al-akthara min shahri as-siyaam wa lam yabqa minhu illaa al-yasiir min al-layaali wal-ayyaam faman kaana minkum qaama bihaqqihi falyutim dhalika walyahmadillaah 'alayhi walyas'alhu al-qabuul wa man kaana minkum farata fiihi wa asaa falyatub ila rabbihi fa baabu tawbati maftuhun gayru maqful naam innakum fi lashiri alaxira min shahri alkarim faxtanimuhu bi taati illahi mawla alazim axsinu fi ayaamihi alsiyaam wa nawalu layaalihi bilqiyaam wa axtimuuhu bitawbati wal istixfaar wa su'aalillahi al-afwa wal itqa min annaar kam unaasin tamannaw idraaka haadhihi al-asra fa adrakahum almawt fa asbahu fi quburihim murtahinin laa yastaticuuna ziyaadatan fi saalihi alacmaal wala tawbatan min altafrit walihmaal wa antum qad adraktumuha bi nicmati illahi fi sixatin wa caafiya fajtahiduu fihi bilcamali alsaalixi walducaa laqad kaana nabiyuna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yucazimu hada alcashr wa yaqussuhu bilictikaafi fi almasjid tafarruan لعبادة ربه وتحريا بليلة القدر التي قال الله عنها في كتابه ليلة خير من ألف شهر ومعنى ذلك أنها خير من ثلاثين ألف ليلة تقريبا منها والسعيد إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين لأنها طاهرة للصائم وتعمة للمسائل للسائلين بارك الله لي ولكم ولسائر المؤمنين allahuma wafiqna lilduaai wa mun alayna bilijabati allahuma taqabal duaana wa ibadatina wa tajawazna wa tajawaz anna wa tajawaz an taqsirina wa sayiatina allahuma ixfir lana wa liwalidina wa lijami almuslimin innaka anta algafuru rahim wa sallallahu wa sallam ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima الحمد لله رب العالمين الذي جعل شهر رمضان لسائر السعود سيدا وكمل به الفقر حيث جعله للخيرات والبركات مورودا وأنزل فيه القرآن موعظة وشفاء لما في صدور وهدى أحمده سبحانه وتعالى وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأسأل أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين سرمدا أبدا وسلم تسليما أما بعد إخوة الإيمان فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم الخائل في محكم تنزيله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وبعد إخوة الإيمان فإن مما خص الله عز وجل بوافر الفضل وجزيل الإكرام وعزيم البركة ليلة واحدة تمر مرة في العام وهي في شهر رمضان المبارك ليلة واحدة عظم الله أمرها وأعلى شأنها ورفع مكانها وقصها بالعزم وقصها بعزم الفضائل وجزيل البركة إنها إخوة الإيمان ليلة الخدر وهي ليلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى an jaalaha xayran min alfi shahr ay xayran min aksara min salaasina wa samanina sana ay alamalu fiha xayrun min alamali fi alfi shahrin laysa fiha leylatu lxadr wa min fadailiha an almalaikatu tanzilu fiha wa fihim jibril alayhim assalaam يتنزلون بالخير والبركة والرحمة لقد كان عليه الصلاة والسلام يستحث أمته ويستنهض عزائمه لتحري بركة هذه الليلة wa xayratiha almawruda wa barakatiha alazim falwaajibu alayna ayuha alixwa an nataxarra hadihi allayla almubaraka biljiddi walijtihaadi fi taacati waliqbaal ala alcibadati والنصح لأنفسنا بالتقرب إلى الله عز وجل وأن نتقبل عليه إقبالا صادقا تائبين إليه من من ذنوبنا وأن نحييها بصلاة التطوع بقيام الليل بتلاوة القرآن العظيم عليه wa bizikri wa tasbiixi wa duaa wa bazlu wal ataa wa taqarruban ilayki bi anwaai alqurbaat wa ala awliyaai alumuur alinaayatu bi ahaalihim wa awlaadihim ixaadan lahum li allaa tadia alayhim hadihi alayaam alfaadila wallayaali alsarifa sudan nasalullah rabbal alamin an yuwaffiqana li tilka allayla nasalullah azza wa jalla an yuinana fiha ala taatihi wa dikrihi wa shukrihi wa husni ibaadihi وأن يهدينا فيها إليه صراطا مستقيما ونسأل الله اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة نقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا واسع المن يا عظيم العطاء نسألك الحي يا قيوم نسألك يا حي يا قيوم أن تبلغنا ليلة القدر wa an tuidana ala taxsili azami thawaab wa ajzali al ajri wa an la tajcalna min cibadika almaxrumina ya zal jalali wal ikram subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulilahi rabbil alamin wa aqimu salaam الله أكبر الله أكبر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 akbar سمع الله لمن حمده الله أكبر, أكبر. أكبر maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul xadri xayrun min alfi shahr tanazzalul malaaikatu warruuhu fiihaa biizni rabbihim min kulli amr salaamun hiya hattaa matla'il fajr allahu akbar سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر akbar assalaamu aleykum asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum. mbooloo bi ak bi ci imaam ñu leen di nuyu. leen eh, di ziare leen baal wax leen baal. léegi di leen ziare wax leen baal wax. ñaan yàlla yal na yàlla boole baal. ñaan yàlla si loolu yal na yàlla boole jégal jégal bi amiin. yal na yàlla sàmmal suñu diine. yal na yàlla sàmmal suñu diine. yal na yàlla saxal ci njub. yal na yàlla saxal ci ñëpp. yal na yàlla jubal suñu ay ndaw. yal na yàlla jubal suñu ay ndaw amiin. yal na yàlla nasaxal pexe noonu lislaam. yal na yàlla pexe nasaxal pexe noonu. ñi tawat te ne ci mboolem ak ñi sooxaale. ci tawat te ne ci mboolem ak ñi ko sooxaale ñëpp. yal na yàlla saafara jàngoro yi. yal na yàlla saafara saafara bépp. tawat dina ci réew mi yal na ko yàlla génn ci àdduna. eh tawat dina ci réew mi yal na ko yàlla génn ci àdduna bi faw. ci loolu yal na yàlla jéggal leen ñu. ci loolu yal na ñu dajeeg yàlla yàlla jéggal leen ñu bépp. ñu tëdd feebar yal na yàlla saafara leen. ñu tëdd feebar yàlla saafara saafara bépp ñi nga xam ne ñoom la ci yàlla musal leen yàlla leen ci yàlla. léegi feebar bu mel nii ñuy wax corona yàlla musal ñu ba ba faw. tey dañoo ñëw nag weeru tedd bi ñu nekkoon. léegi man de léegi xam ne ñoo ci fukki fan yu mujj yi nga xam moo gën a tedd ci weeru. xam ni fukki fan yu mujj yi moo gën a tedd ci weeru. xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ko bàyyi xel lool. nee Seydina Muhammad yàlla nañ ko yàlla nungu. kon fan ci doxal ci ci ak njëggal yëpp ko yàlla. ak wala jaajëf yàlla nañ ko yàlla amiin. te e, ñu dëgmal yàlla nañ yàlla may kàttan ba def ko ni mu ko bëggee. nee fan yii mujj yii ñu ci doxal ñëpp yàlla yàlla may kàttan wér ba ñu def ko ni sallallahu alayhi wa sallam fukki yi nekkoon na yu mu fonk lool lool lool. mais Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fukki fan yu mujj yi daan na doon fonk lool daan jëlee képp laay baax. dañuy wax ni bu ñëwaan da daan fedd li laxasaayam sax gën a takk. mais bu ñu ko saa doon fii moom Seydina Muhammad sallallahu daan fedd li laxasaayam. daan na ci boole sax ba dem ci jàkka yi sax bedde beru fa toog fa ngir mën a wéetal boroom. mais béykat sax da daan moom béykat ko mu yëngu yëngu jàkki toog fa ñu wéetal borom màggal fukki fan yëpp nañ ko. ndax laytu xadri bi ñuy xentu ñun ñëpp ci la nekk. ne laytu xadri bi yëpp ñuy wax ci la nekk. ni ko sallallahu alayhi wa sallam waxee woon rek ni wër leen ko ci fukki fan yu mujj. ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngalekat bu mag ñu wër leen ko ci fukki fan yu mujj. ci fan yu tool yi. fukki fan yu tool yi. ñaari fan jàllagum na ci. ne ñaari fan jàllagum na ci. ñaar fukk ak benn ak ñaar fukk ak ñett yoon bii nee ñaar fukk ko fan ñeent ñaar fukk fan ñeent ñaar ak ñeent fukk wala ñeent yoon bi. waaw kon ñu de ñu dese ci ñaar fukki fan bi ak juróom ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ak ñaar fukk ak juróom-ñeent. nee kon ñu dese ñaar fukki fan ak ñaar wala ñaar fukk ak juróom-ñeent wala ñaar fukk fan ak juróom-ñeent. yaakaar di dafa gën a ëppee nag ci ñaar fukki ak juróom-ñaar. waaye yaakaar di dafa ëppee nag ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar. yàlla nañ ko yàlla dëppale. kon yàlla dëppale nii. te lépp luñ ci jaam yàlla yàlla nañ ko yàlla. bu mu nekk suñu jub koor. te yàlla bu mu nekk suñu jub koor amiin. ñu fàttaliwaale nit ñi rek ci mburum koor mi tamit. nii maam ne ñu fàttaliwaat mburum koor yi. nañ ko defaale yitte tamit. nañ ko defee yitte bu baax taxaw ci koor yi koor yi benn mburum koor rëcc rëcc yi doon am ci biir koor gi. ndax rëcc rëcc yi doon am ci biir koor gi. te duñ suñu coobare. te du woon suñu coobare. mburum koor mi mën na ko setal ba mu set. mburum koor bi ko kon ñun ñëpp nañ ko def yitte. kon ñun ñëpp nañ ko yàlla la. defee ñu mën a bokk ak feet gi ñun ñëpp ñu bokk. bu ko defee feet gi ñu ko bokk. ñi ñàkk ñi am dañu mën a bokk feet gi boobaa. nee bu boobaa ñëpp dañ bokk mën bokk feet gi incha allah. ndax loolu mooy li jublu ci mburum koor. nee ci murum nekk di laabal aji woor ji. mu nekk di laabal aji woor ji. waaye tamit nekk tamit xéewal ci ki nga xam moom lañ koy jox muy miskin bi. waaye nekk xéewal bu mag ki nga xam jox murum koor mu miskin. bu ko defee ñëpp mën a bokk mbégte mi rek. bu yàlla na yàlla ak jàll yàlla nañu yàlla mottali koor gi ak jàmm. baaxoon def na julli fay faat gis ni àjjuma jële di ñëw wóoru ki. bu njëkk bi alxames la. comme séntu bu moo tax ñu ne dañ ko def tey jii rek. moo tax si yéen ñu ne dañ ñaan yàlla mu dëppale ñu ak moom. ñaan yàlla mu dëppale ñu ak moom. Eh, ñaan yàlla yàlla nañ ko yàgg teewe. lépp lu ci ñaan mu dem mu bari yàlla yàlla nañ ko xéwal ko baax na ci yàlla dogalee tamit feer weer yi feeñ fi te ñëwaatuñ fi ci àjjuma yi tamit. te ngeen ñu waat ngeen si waat ci àjjuma yi. ñu ne ku fi bëgg a jullee rek neuf heures ne la fekk. ci bis bu bëgg jullee rek saa àll ba nekk neuf heures fekk. yal nañ ci yàlla àggale ñun ñëpp. yal nañ ci yàlla yóbbu jàmm ñi ñëpp. ñu jaamu yàlla yëpp yal nañ ko yàlla. léegi ñu ngi jaamu mu ne mu war yàlla ko ñëpp na maa ngi. ñaan yàlla yàlla nungul suñu koor yi. nee ñaan yàlla si koor yàlla nangu suñu julli yi ñuy def. nangu suñu yi def. nangu suñu sarax yi. nangu suñu sarax yi ñu joxe. yal na yàlla nangu lépp. yal na yàlla nangu lépp. yal na yàlla nangu lépp. mais yal na yàlla nangu lépp. ñëw ci mbooloo bi su ma mën a